ayca internet yi ba tey rek euh, nee naa leen dañuy wéy di waxtaan li nga xamante ne moo di actualité làmb euh, tey ñu toog ak ki nga xamante ne moo di Sa Touba ku ne xamee ko ak ki nga xamante ne moo di la roi des arènes euh, muy Modou Lo le roi des arènes Modou tey Sa maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. di nuyu wa jambar production yëpp bàyyiwuñ kenn euh PDG Mansour Ba ñu ko koy ziar di ko jox waccu way mbax ba tay ñu fekk la ci lamb ji nga tok di sétan ñu fas yéene waxtaan ak yow actualité euh, tay cité la de guerre jall na ban analyse ngay def ci lamb joju ba paré wa lamb lo rek joo xamanteni amateur amateurs yi ko sétan yep gis nañ xex gis nañ béré ñaari mbëri ñemente nañ. kenn ku nekk yaa ngi doon joxe li nga moom yàlla miy joxe ndam jël ndam li jox ko Lac de Guiers par décision arbitre Siteu wane na ne carrément moom bokk na ci VIP yi pour ñëw imposer boppam te lamb gëm-gëm la te mu ngi ci moom. waaw tey Siteu est-ce que d'accord nga tey Siteu li mu bëree woon digganteem ak Lac de Guiers ndax d'accord nga ci. waaw xam nga lamb la moo dal xelam te nit ak mëninam mais expérience am mi ngi yokk ci làmb xañ na lu muy gën di dem rek di gën a defaraat bërëm parce que itam poids lourd bu ne c'est la première fois mu bëre poids lourd bu mel ne Lac de kon kooku tey mënoo koo ne koo critique ci dara bu demee ba xoolaat moom ak ay custom ak yooyu danañ xam la lañ mën a liggéey ci moom pour mu gën a mën a bëre poids yi parce que tey dafa tolloon ci période boo xamante nii dafa ñëwoon tey nit ñi di xool niveau am fi mu toll wane na boppam ne mën na bëre poids lourd yëpp. Mhm. Tay lan nga côté la de Guiers lan nga ci def jangat wa la de Guiers li wax chaque jour moy nattu lamb ji mbeuri la de problème mu ko moy sen problème parce que itam pi mbeur yag na fe nek de rasu te teewut gars dañ lay dan mais li ci la de Guiers la gars wara war xol lan la ngir ñu mën dan tay tey ta genn ci la de Guiers fas yéene ci benen combat bu xawa jaaxal ñu ñenn ñi ne ñor na ñenn ñi ne ñoru digganteem ak Balla Gaye ñu ngi koy waxtaanee digganteem ak Ama Baldé ñu ngi koy waxtaanee yow tey la mooy sa jàngat ci loolu. waaw ñaari lamb yooyu yëpp benn du ci yomb ci moom bu mu ci mën di jëlit na gën a defaraat toogaayam gën a waajaat rek te xam ne doon na doon na combat yoo xamante ni ñoom ñoo ko jiitu ci poids lourd ñoom ñoo ko jiitu ci kaw ñoom ñoo ko jiitu ci VIP yi kon tey bu mu ciy mën di jël na xam ne na mel ne mu ngi mu ngi door a commencé à zéro. est na pour mu jël Balla Gaye. waaw xam nga loolu nag côté staff bi ñoo koy gérer quoi parce que man position bi ma taxawee am na loo xam ne du sama cër te bëgguma dugg ci loo xamante ni tey. mun na maa def amateur en tant que amateur. yow boo doon boo yoroon Siteu est-ce di nga ko xelal. mu dem li mu la mais tey boo yoroon Siteu tey da nga koy xelal parce que lu tax da koy xelal tey boo sañoon tey sa mbër bëre ku mel ne Balla Gaye 2 boo sañoon sa mbër bëre ku mel ne Modou Lo parce que loolu histoire koy bind. ndax ñooñu liñ def ci làmbu kenn mënu koo fay doonul loo xamante ni xam nga lu nit ñi di fàtte la kooku kuy rêvé bërëg ñoom kay xam nga bala Gaye da doon rêvé bërëg Tyson tey ba mu bërëg Tyson am na fu mu ko yóbbu xam la Modou Lo gis nga ñi doon rêvé bërëg Eumeu Sène bi mu bërëg moom am na fu mu ko yóbbu comprends nga lamb moo mel noon rek. ñu jógee ci loolu dugg ci beneen actualité muy le premier janvier diggante Modou Lo ak Boy ñaa ku ne xam xam na ne Modou Lo bëri na ñu ko jege waaye yow bokk nga ci ñu gën a fës ci ñu ko jege nan nga di waajee combat Boy Niang. waaw comme ni ñu doon waajee combat yëpp rek noonu lañ koy waat te ñun li may wax chaque jour rek nekkuñu di waaj pare nan di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam incha allah ndax le premier janvier soreetut. Boy Niang nekk mbër boo xamante ne du attaqué Modou Lo it bëgg a xaar est que tey dina yomb. Modou lépp lay def day attaque day def lépp. Modou lépp lay def Modou mun na attaque mun na xaar booy Niang day xaar nga réactionné mu remise la xool sa réaction pour mun a bëre ci sa kaw mais Modou mën na lépp parce que loolu bëre Modou la. est que Modou dina xeex boobaa. ah baal baar bi jëli seen diggante rek baal baar bi jëli seen diggante rek. mais est li ci li ci li ci Ama Baldé nekkul ci Boy Niang de. ah loolu yëpp daal sa waay. Moodu moom ñun côté bi nekkee lañ la ñuy mais moom moom mi nga xam ne mooy bëre moom bu duggee ci biir bi dana xam lan la war a bëre ak Boy maanaam sëriñ yi wax ci làmb ji maanaam gis naa diw day daanak day daanak ak yow ban message nga leen war a lancer pour ñu mën a xam. fi ñuy teg wax ci lu ñëwagut. yàlla day wane lu weex ba ñëpp gis ko mu def ko mu ñuul yàlla moo fi nekk. lu war bay ndamu yàlla yor na lu ko ëpp fop séddale ko ci jaamu yàlla ba pare toog jàpp boppam ndax dégg lo fi xam nit xam na lu ko upp fop te ngi tok ci kon jëru di wax ci lu ñëwagut nañu and ak seen xel tay delu soor xel yi ta xam ne fi kenn mënu fee wax ba wax fi lu fi nit waxut kenn mënu fee def ba def fi lu fi nit defut aduna yalla ko mom te ku ne jaar na fi. ban message ngay lancer supporter. wa ñuy gëna and ak dal rek ta xam ne li sport la ku sa mbeur daan nga and ak mom ku sa mbeur daanu nga and ak mom ta xam ne yàlla maye ku mënon dang koy def sa bop yàlla suñu borom bi mooy xool lu ko neex def ko ci jaamam ñun ay ñaankat lañ ñun ay ñaankatu yàlla lañ rek dañuy ñaan ci yàlla suñu borom bi mu ñuy may amaana mun nañ koo ñaan mu bañ ñoo may li may wax chaque jour rek séntu naa sax indi mbër fii ñu dóor ko mu daanu wala ñu yenu ko dóor suuf boobaa damay santaat yàlla xam na nattu yàlla suñu borom bi la ndax ba ma yàlla dalee suturaal ci biir làmb yàgg na te boobu ba léegi maa ngi sant yàlla kon séntu naa lu ne dund ak dee ñoo yam am ak ñak ñoyam mën ak mëne di ñoyam lay jaajeufal bu baax. dila ko delo baax a baax jërëjëf. mbokk yi ñong leen di nuyu fi ñu leen baaxoo di nuyoo fi ci arène nationale fi nga xamantene ne moo di jàmbaar news mbokk yi combat spécial bi tàmbali na diggante Youssou Ndour ak ki nga xam moo di Boy Diakhao yusu Ndour moo leen won gannaaw ngemoo ngemu lu weex li am benn morceau bu bleu Boy Diakha moo ngem moo ngem bu weex bi ñoo ngay leetoo Youssou Ndour moo koy déglu Boy jaxaaw a ngi sànni loxo lu tubaab bi naan balancé loolu la tubaab bi di wax ay Momo Momo nee naa la combat bi est que du dàq grand combat ndax combat bi combat spécial la. mbok yi diggante Youssou Ndour a ah, Youssou Ndour sànni na loxo dorna na góos Boy Diakhao dem latéral yakar na né combat bi ñom ñaar ñu ñamanté aka ñoo ñamanté kenn ku nekk ragalo sa morom Boy jaxaw mi ngi dox di ñëw ci kaw Yusundur Ndour Youssou Ndour mi ngi delu ndànk-ndànk yakar na ne stratégie wu mbeur la kenn ku nekk ak na ngay bëree man ko kenn ku nekk ak na ngay ak na ngay bëree jàppante nañ loxo yaakaar naa ne mbokk yi arbitre bi àtte na leen nee leen kaay leen bëre leen léewtoo léewtoo rek du yoon waaye songante leen xaa bu bi làmbi jigéen sax jeex na aja ñu ngay lewto lewto ba ngay bar Yusuf Ndour sané na loxo ñu xaar ndax buntu dina am ba jaxa dag na lewto ba dem lateral way songo len ardi mi ngi leen naan bëre leen bëre leen da ngeen wara beure nak nag yeewi askan wi ndax sonu nañ lool ah Youssou Ndour sané na loxo Boy Jaxaaw rëkki riposté Youssou Ndour dellu Youssou ma ngay dellu Boy Jaxaaw ngay dox sa kawam moom Youssou Ndour songo bi ndax dina ko arrangé xeex bi jàppoon nañ ñoo ngay dóorante kaaw baa am kaaw baa du am ñoo ngay dóorante Youssou Ndour a ngay xeex Boy Jaxaaw fayu na Jaxaaw mu koy xërte ërtal Boy Jaxaaw ërtal na ko ah, dóor mu daanu doo kanabi a ah, Youssou Ndour dóor na Boy Jaxaaw Youssou Ndour na Boy Jaxaaw Youssou Ndour door na ko Youssou Ndour door na ko Youssou Ndour door na ko ah Youssou Ndour door na ko Boy Diakhar daanu mu jëkk dox ci kawam nee na ko door mu daanu bi doy ma ma jàpp la daan moo may doy yaakaar naa ne combat bi combat bi Youssou Ndour Youssou Ndour a ngoogu Youssou Ndour